kilifa rek jóg jot na ci moom bu nangoo ne kilifa la rek jóg jot na wax jot na waaye feek tudduñu ko moom wala tudduñu ruq ba mu nekk wala dëkk ba mu nekk wër sa jóg loolu njuumte man na caa am bu fekkee daa tànn ci réew ma benn dëkk dëkk ca tànn ca ab gox dëkk fa tànn ca fu dëkk ne mooy këram képp feeg laa loo ko jëralu ko jóg dese naa dégg lañ gàll ci aw loosam fu fi way dégg fuy bax fuy soow laata muy bax bay wañax bu nangoo ne kilifa la rek jóg jot na ci moom xaw ne ku muy waxal waaye jóg jot na wax jot na te ña ko séq ñëpp nag nga wax ak ñoom ndax bàyyil jooy yi moom munta ànd ak tépp mooy borom kër boo xam ne day dégg gone guy jooy kaku tim yor yara banan tip nopil tip ak nopil ma munta am so ñewé da ngay téye kay dóor ba kay joy noppi nga ne ko loy joy ak lu ngeen lum la def ak loko def def mu ñël loolu di kilifteef loolu nak bu mako ko ci ak kër non la ab dekk euh, maye dum don rek jarna waye lu koy xagne jarna lu nek ba jam sax yàlla yàlla dafa deug top te mos ji sa bakam ya rasulullah lana wa lakum wa lisairil muslimina amin